lay demee quoi dañuy organiser waaw tey dañuy organiser mini prime si biir kër gi waaw comme nu muy demee si prime yële rek tey moom la ñuy organiser si biir kër gi waaw man maa nekk nag waa lamb académie waaw ngeen xamee ko noonu léegi nag damay tiire kuy njëkk arbitre waaw même arbitre bi si ñun lay nekk waaw léegi damay tiire kuy njëkk arbitre waaw tur yaa ngi nii maa ngi koy maa ngi koy jaxase nag turam génn yaay Souley Sarr. yaay arbi yaay njëkk a arbitré. waaw léegi. premier combat. Léonel ak Daouda Thiadiaye mooy premier combat. deuxième ak Dame mooy deuxième combat Ousmane Sow. troisième combat Ousmane Sow ak Cheikh Niang. waaw mais nag mais nag dina am si si ñu am défaite dina am kenn ku ma si repêché mu dem fekk ci ñële dem final waaw. ensuite prime bi la mooy ku gagné. yow yaay nekk patron gaale bi pendant une semaine déglu leen wuy dégg ngeen ku gagné yow yaay nekk patron gaale bi pendant une semaine lu la neex lañ fiy def ah loo bëgg la ñuy togg ah foo bëgg ñuy dem heure boo bëgg la ñëpp di tëddi su la neexee sa yére sax dañ la koy fóotal ku gagné. oui am na solo ah. daa ci leen bopp. oui <laughs> man la Sitor Ndour man maa leen di arbitrer seen règlement bi nag sifflet bi moo leen boole su ma su ma dafa am lu am su ma sifflewul konti leen bëre bi jëli nag mun xam ngeen ko wala ma def leen démonstration bi xam ngeen ko kon warul am mun warul mun a am werante ci seen biir su ma sifflee jël rek jël moo am yéen nag mbër yi xam ngeen ma man la Sitor Ndour bisimilah. ñaari xel naata am doon ak ñuy bëri fii wax la Lamine Samba ñaari naata am doon ne ah ñu yàgg a toj mbapat lañ waaw waaw combat bi arbitre bi sifflé na ko ñu muy def ay déplacement waaw léew na la déplacement waaw boo xoolee daaw da ngemb séeréer la ngemb quoi waaw daaw daañu aj tuwe léew na la daw di ko jëli waaw jàppante nañ ñaari mbëri jàppante nañ ñaari mbëri jàppante nañ waaw daaw da daaw da ko léew na jël na tànk bi léew na jël na tànk daaw waaye lii daanul daaw lii daanul daaw de. waaw waaw. Eh, am na lu xew. arbitre lu xew. arbitre lu xew. da koo wekk tànk da koo wekk tànk. mu wekk ko si ginnaaw ma wax nag fu ko wekk mu wekk ko waaw. waaw ñaar arbitre sifflé na combat ñaari xale yaa ngi léewtoo ñaari xale yaa ngi léewtoo diggante Daouda ak Léonel kii jóge Casamance kii jóge Thiadiaye bu nekk ñaari xale Daouda daw na songol Léonel rasu waaw. ñu bëre ñaari xale yaa ngi bëre diggante Daouda Ngom ak Léonel Léonel mu ngi def ay déplacement latéral waaw Daouda Ngom Daouda Ngom Daouda Ngom daf ko daw kal ko plaqué fa mu daal daaw daale jël bi réere eh, jël bi réere waaw ma noo daale jël bi réere jël bi réere noo ko daale mais dama koo teeg dama koo teeg buuxo buuxo ah ah jël bi rafet na ah ñaari mbër yaa ngi bëgg a jaxase combat ku ne ne penk lay féetee ku ne ne penk lay féetee xale yaa ngi bëgg a jaxase ko baaw ñaari xale yi laa woon dama leen yàgg a suivre dañoo yàgg a daje ci mbabat waaw combat bi moo tax du yomb combat bi du yomb. daam jaay nee du daam jaay nee ah, daam mujjee na nangu ah eh, daam nee na waaw arbitre waay waay waay sifflé diggante Dame Ndiaye ak Mor Mbaye Dame Ndiaye daw na ko jël xaaroo arbitre sifflé sax nee naa la ku xeeb du gis jël bi. dama xam ñaari xale yi. est-ce xam ñaari xale yi. ñaari xale yi jàppante nañ. waaw ñu ngi nee nga yàlla Modou Ba daf ko daw bal. man maa wax lii. xale yi dama leen topp mbopot xam leen. daw na di ko mbot mbot na ko mbot na ko xale baa ngi jéggi mbot bi xale baa ngi jéggi mbot bi eh, gis nañ bëre ah gis nañ bëre gis nañ bëre xale bii moo mën a jéggi mbot. Jaxaay ak Modou Mbaye bu lee Tigre de Fass waaw. Eh. Eh, amul jàpp waaw xale yaa ngi bëre daw na ko bal eh, xale yii xale yii seen combat du yomb xale yii seen combat du yomb arbitre teel a mel terrain bëre leen. arbitre moom du joxe avertissement sa ndax booy yi bëre ah arbitre da ngay joxe avertissement koo fu avertissement keneen ki dina nangoo bëre waaw xale yaa ngi bëre xale yaa ngi bëre xale yaa ngi bëre xale yaa ngi bëre ñu ngi woon babat ñu ngi woon babat amul jàpp gemb avertissement amul am na benn avertissement Dame Ndiaye zéro waaw Modou Mbaye daw na jël ko Dame ne da koy mbot Dame rasu lay def xale jaxaay bi lay def waaw bëre bëre bëre arbitre c'est le maître du terrain bëre bëre bëre arbitre c'est le maître du terrain bëre mu ngi ah, mu ngi bëgg a ensonné Dame Ndiaye ah, jël nañ ko